waa waaw d'abord jàngat ñu ci njëkk am mooy euh, dafa bëri ñoo xam ne bu coow amee dañuy jaawale lislaam ak sentiment wu doomu aadama bi loolu du benn bokkuñu parce que da ngay gis ci table ñu ci bëri naan l'islam lu mu wax ci borom ñaari tur yeeg bañ lakk koog bañ nangam foofu lislaam prononcé wu fa parce que yàlla du détail nit mooy détail yàlla bi mu waxee ne am na mbir moo xam ne xewoon na. nitu yonent yàlla Luut di defoon ko dama leen alak nu ma leen alakee mooy damaa yëkkati suuf si bañ tolloog asamaanu juróom-ñaar ma dëpp leen jël ay xeer sànni leen ko comme yàlla moo mën a def loolu kuy dund waxuma ak nag ku dee yàlla bu précisé si kuy dund rek waxtut ku dee mais nag d'abord bi ci jiitu mooy bu ñu fàtte ne Kaolack yu mel nii daf dafa dafa daf leen yàpp 2015 euh, bu fàttali ko amee fa lañ déggee woon mariage bu borom ñaari tur yi. Mhm. rawatina nag ci bisu gàmm lañ ko defoon. Mhm. muy nga xam ne bis boo xam ne dañ doon màggal rasulillahi ci lañ ko def. def ko ci benn école bañ jàpp leen ca la ca xew yëpp ñëpp xam nañ ko après ñii dañ leen dagal ay passeport diplomate ñu dem ñii ñu garanti leen seen i privilèges ci réew mi. mais li ëpp importance rek mooy loo xam ni. Mhm. tey bu ñu ne la woon borom ñaari tur gaañu na ñu ngi koy dendaleeg sa wayjur wu góor ci bàmmeelam da nga xeex ba dee. wala ñu ngi jël sa bàmmeelu wayjur jigéen di ko xot di fa dugal borom ñaari tur yi yow amaana tey amaana bis boobu loo mën a maanaam noo mën a euh, indee provocation di ko def mais xale yi def loolu nag ñun dañoo ñaawlu ci côté lakk bi parce que doomu adama wala xadd karam naa bani aadama wa amal naa fil barri wal baxri la yàlla wax yàlla nee na lépp lu mu bind doomu aadama laa ci gën a bëgg. dëgg la mais nag am na ay maanaam euh, détails yu yàlla indi foofu daf ne ki nga xam ne ñu wala borom xam-xam yi indi foofu ñu ne borom borom ñaari turi la nee nañ génn na àdduna xool. ki gën a yées ca koñ ba ñu digte ko ne ko kaay nga taxaw nga jullee ko nii nga ko jullee bu ko jullee pare ñu xool aussi ñi nga xam ne amuñ yaakaar ci koñ ba bu ko benn borom ngëneel topp ne ko dem leen ngeen suuli ko mm-hmm. borom xam-xam yi am na ñu ci indi xawlaane ñii nee nañ comme comme xas na ba wax baatu ashhadu an laa ilaaha illallaah bi bu koy suul na fee ko féete penku ñii ne déedéet wax na ko mais dafa jëf-jëf joo xam ne yàlla daf ci àllagoon aw xeet lépp kon nañ ko féetloo xibla bu ñu koy suul ñaari ñaari ñaari riwaay yëpp am na ci parce que mbir la moo xam ne sunu borom bëggul ko te société Sénégal bëggul ko soxna si. parce que li tax société Sénégal bëgg ko mooy bul fàtte ne maanaam li ñuy wax ànd sàmm ko yi defoon nañ lu mel noonu dem ci mboolem xalifa généraux yi nekk ci réew mi ñu signé. léegi xale xalifa généraux yooyu dañ ko neenal ci ay détails wala ay caaxaan ci yoo xam ne ni baaxul benn te ñu fàttee aussi tamit ne yàlla bu rusee ñenn ñenn dafa am ñenn ñenn tax ñu rus leen. ñenn ñeeñu ñooñu tax ñu rus leen bu ñu jëlee seeni i bind signé ne ànduñ ci lii nañ wax ne ànduñ ci lii parce que nag bu ñu mënee criminaliser viol war nañ faa mën a criminaliser borom ñaari tur yi parce que viol lu mu bon bon njaaloo kese la borom ñaari tur nag dafa jéggi njaaloo parce que loo xam ne la yaa ngi jël sa jiw di ko def foo xam ne maanaam ba ilaa yomi diin la ngay jiddu sax parce que bu fekkee góor ak jigéen li tax yàlla bind leen pour ngeen yokk xeetu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam pour ngeen amantee njëriñ am ay takk leer boobu ëllëgee bu ngeen fi jógee ñu ñaanal leen mais bu dee góor góor lan moo fay génne dara du fa génne lu dul ay feebar ay mbugalam yàlla xol bu bon ak aussi tamit maanaam di yor manière yoo xam ne nii foo toog ki la jur sax rus naa wax ne maa jur diw kon aussi loolu nañ ko moytu beneen bi côté bi it am na lu ci état am wàll li ci état am wàll mooy am na loo xam ne diine islam rafetlu ko àndu ci dàq na ko diine chrétien rafetlu ci àndu àndu ci dàq na ko te réew mi ñaari diine ñoo ko composé mm-hmm. muy diine l'islam ak diine chrétien mm-hmm. ñoom ñaar ñépp ànduñ ci borom ñaari tur yi mm-hmm. comme ànduñ ci nag yow état bu fekkee dañ ne maanaam ci péede lay layig nga nekk dundeewuñ ci atte sarian dundeewuñ ci atte beneen waaye atte bi ñu dund tubaab yee ko tënk ngeen indi ko dugal ko ci ay article d'accord nañ loolu léegi yéen da ngeen jël seen responsabilité ngeen xamal askan bi ne mënu fee jug mais ci kaw mënu fee jug nag defal leen seen armée lu bopp bu loolu amee rek mooy solution bi bu leen defalee seen armée la bopp ñu ne léegi képp koo xam ne homosexualité nga boo dee fi lañ lay suul léegi tey mu jeex ci réew mi parce que kenn ku ci ne dana xalaat ne man lii ma ne ëllëg ñaanuma yàlla ma dee ñu tëral mën a diw nangam mi samay doom ñëw di ma siyaare ñu ne armée la homosexualité yaa ngi ne